information dernière minute ci Aladji Malick TV gars yi nga xam ni ñoo doon séntu weer wi tañu ñu amoon ci ay gars yi nga xam ne daanaka ci gox yi fasantikoo yi weer wi moom feeñul fenn yoon ci biir Sénégal gi nga xam ni bu gars yi waxantee dëgg rek xam nañ ni weer wi feeñul njaayeen yi ak njóobeen yi nga xam ni danoo sonn benn fan sëngam moo ci def gars yi nañu ko matale ci àjjuma ji ci kàttanu sunu borom samedi gars yi doxal li nga xam ni mooy Aïdul Fitr wala boo korité weer woowee séntu nañ ko ci gox yëpp feeñul fenn yoon ngeen gis ko noonu mu ne jonn noonu tey jii a jafe gis lool nga xam ne daanaka mbas na gaa yu bari yi nga xam ne ñi ngi ko doon xaar kon information bi dëgg-dëgg mooy weer wi gaa yi séntu nañ ko ci Soumbédioune séntu nañ ko ci Ndakaaru Touba Mbàkke dëkk bu sell ba nga xam ne fi mu toll nii naafila ga sax wadd na danañ leen ko jox léegi ci Aladji Malick TV fii nga xam ne tamit mooy Thiès tamit di fii nga xam ne ñi ngi fi toog ni jonn weer yi moom it feeñu fi mbuur ak li ko wër Kaolack ak dëkk yi nga xam ne daanaka fépp information yi ci ragalaatu ci sunu yi nga xam ne daanaka ñi ngi leen doon woo benn par benn gars yi xool nañ weer yi waaye euh, tous tasar gisuñu dara bu dëgg dee dëgg ndax weer yi euh, mi ngi waroon a euh, suulu 19 heures 53 nga xam ne gars yaa ngi ko doon séntu waaye bi 19 heures 53 jotee gisuñu dara te képp koo xam ne ñiy gëstu ci wàllu joxe weer wala di ko seet xam nañ ni jamono ji ñu toll 19 heures 53 day fekk weer wi dugg kon ku ko gisul ba boobee daanaka leneen loo fi bëgg a indi ay naka sa xandan lan waaye weer woowee feeñul guddi gi nga xam ne tey ji mooy ñaareel bi nga xam ne daanaka naafila ga euh, fële ca dëkk bu sell ba nga xam ne sëñ bi euh, ak ñi mu àndal ñoo ko joxe euh, guddik weer gi ñi ngi kii def naafila juróom benn rakka rakka bu ci ne nga def fatiha ak fukki xulwa allahu ak benn fukki xulwa ak benn comme mu nekk noonu loolooy naafila gi nga xam ne mooy naafila gi nga xam ni mooy dimbali ci kooruk suba gi nga xam ni ca ngeen nekkoon information bi mooy loolu bu leen kenn nax Alxaaji Malick TV weer wi gars yi gëstu nañ ko waaye leer ba leer mooy gisuñu ko bonus bi moo yi nga xam ne daanaka gars yi ko fabriqué waaye xam naa ni boo amul sens am njaayeen la mënoo fexe fexe ba gis weer wi